العالمين خلافة ملكية ñëw leen ñëw leen ñu njëkkante taal bi bismillah abdu borom jabe yow la nu wóolu yow la nu doyloo yaay doon ay rasooloo jàllise yal di daare canaba jabe di daare borom jaaju bi yal na yàlla fay leen man bu ma leen gisee sama xol day sedd ma bëgg si ñàpp tàllal leen loxo yi sëriñ bi ñaan jaa ngeen jëf jërëjëf fajugaale zaahir ak baatin jërë ngeen jëf mën ngeen a nag jël place yi tabarakallahu ah, programme bi continué Pikine incha allah suñu noppee Serigne Maguette Diop moo ngi nii toog di tàggat yeneen bi macha allah moom it di soppeeku Serigne bi Serigne Mahfouz Koule ana bu jot moom it macha allah mu dagg ay teem ñëw di tàggat yeneen bi di soppeeku Serigne bi incha allah kenn ku fa doon li Serigne bi mën képp ku ci am wàll di nga jot sa wàll incha allah ñu ngi dalal waa Fass Kobe macha bezoek vir die binjana liprek mashallah ingira klasi na ñëpp a bezoek sëriñ bi ñaanal ñëpp ñooñu di waa Fass Kofe di jàmbaari Seexu Canaba mashallah yal na yàlla dolli seen jàmm na ñëpp a bezoek fa tabarakallah sëriñ bi ñaanal leen ñu jël place inshallah loolu lay ñepp ñëpp suuf ma sha allah sëriñ bi ñaanal leen seer nañ kon Baye Sall Mbengue bismillah Baye Sall masalah dari allah daara yi mu bi ñu jox allah ñu ini nuyu Channel TV masalah allah El isunya mak fa tabarakallahu euh, jiite euh, taxawaay bi te it at yi yëpp mooy ñëw ñëwal boppam macha allah du yeble waaye moom mooy ñëwal boppam lépp lu ci war ci taxawaay ma taxaw ko ba njàmm yàlla na yàlla dolli sa jàmm ci barke yonent bi ak waa Thiénaba TV Thiénaba 24 it ñëw nanu di Serigne Talla Diagne di jarbaatu Serigne bi macha allah di jarbaatu Serigne Souleymane Seck borom xaas ñuy ñaan yàlla na yàlla gën a barkeel ci barke yonent bi bismillah Baye Sall. zikr bazar الذي جعفر سماء إلى السماء منى كل ذي خلق وأعلى من المنى طبيب الورى إن آتى الدين والدنيا المجد فائزون إخلاف وصله بدمهم وكان أرهى الناس فيهم لإلهم فوصنا به عسا وما بسلهم سعينا به فخرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض يخلق مبارزون اللهم صل على Pastor

الأمير والمحبة مصطفى يجاب وما يدعو ويلقى وما يخطو اللهم صل على محمد وسلم وسلم وسبي المصطفى مهربا تلاوة عسر من سماء الهردا وجود يمين من حوائد المسطور على عليك على الحل والإحصاء يدمر داءه على العدل والإحصاء يدمر داءه أفادهما بطا وكف هداءه فتم المريض القلب بصبص هداءه تلعقت بزرى من أجاب نداءه فقد سألت هو والقصع الصمت وسار الدين والفدائل همته وقد أثمت منه على كل نعمته طلع رسول الله إلى خلق رحمة تسليم على أبيائه لما سمتم نفسه بجانب ولها واخلاقه نبيه تخلق كمثلها وسعته لا فن لبعدك فضلها طوائفه خير الطوائف كلها على قدر والتنسان فينتقى بالسبع على صل على سيدي البصره رمعة ودية وأعراب صدق في إلهي ردية ونفس به عما سوى وغنية تحارة قسا ومعنى جلية وأقواله حكم وأركابه حفظ الحلف طيب الحق ما تلعسي دلع السماء السر كسالا لحسي وخنا لمن الخلق ما ساء وزني المساء من فعاده وأجروا له بهرا فجاء فخاده ولما رأوا في المهد لما تنتهاده فقابل حوت الفور لنفسه وقد نكث فما قل لنفسه فهو هما سرها لأبكل لنفسه قوائلهم مقصورة منصب رأسه وأساده ورد وآياته رهط تحيره المولى من الخط خلوة وأبقى لنا فيه مدى الجهل أسوة وزاد به عنا من الجهل نهوة رفقنا به بعد تفاخر إخوة سواء كما سوى مداريه المستور خير سواء كل ريب ومرية وحق الفتى مع يخال بخفية طلبنا فأدركنا به كل بخية فنسقى إذا نسقى ونقطع إذا نقطع الله الأبات سواه ولما رأينا للأبات لما هو رمحنا بأبصار البزائر نهوه وقد تمت الأموال وانتصم السقطور

كان ناصحا قطعت له بالخيل بهري مادحا طويت على سوخي إليه دوائها بها كل حين من تفكره سرت على على سيدي مزري وزفير والله ما من صدق حبه فلله ما أعدك فمن سبق حبه ليوم طلاق زاغة عند ربه وما أحد أولى به من محبه سمعت بأثناء الجزاء بحبه ولملا وحدي من مدائه شرط الله اللهم صل على محمد سيد البزير la la कर्म कर्म है delloo sëriñ bi ndax ibnu muhayyib bi moo ñu ci gën a encouragé boole kook ay ñaanam moo tax amatuñ ci sago loolu mooy suñu kóllëre ak moom ginnaaw doomoo gi ak taalube bi waaye bi ñuy ñëw ñu ngi ànd ak sëriñ Babacar Sarr moom moo ñu indaale ci oto tabaarakallaahu woo ba pare daw ba dajeeg man ànd ak magam sëriñ Alaaji yàlla yàlla def mu doon aw yiw ñoo ngi bég lool ci biib jotaay yalla bu mu doon sun bu dajé daje nañ ko fi daje ay ati ati at di siaré ñëpp di dalal nyep, ah di jiital ci niyo bi señ bi di koy ñaanal yalla fan wu gudd ak wër ndax eh, kilifa gi doon na kilifa go xani ni danaka waxati sax du ko jar ndax kilifa la go xamanteni bi ah eh, ndey bët bi muy xol dom moom la sëriñ bi di xool njaboot gi kon loolu daanaka ñëpp xam nañ loolu ginnaaw ba loolu weesoo ñoo ngi sant it bokki dëkkandoo yi nga xam ne ñii ñoo ñu wër nga xam ne bis bii bu teewee euh, dëkk yi ñu wër kenn ku ci nekk bu sañoon lii nga xam ne moo fi teew ci wàllu matériel ñoom ñoo koy def fu mel ni kër xaalee ngi fi fu mel ni Canaba Gosaas Sëwru Jàll fu mel ne fas Barigo fu mel ni Gawaj ñoo ñëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi ndax yaakaar naa lu mu sama way jur na ci rawatina kii nga xam ne jëmm yëpp man su waxoon rek daa demaat jox micro bi déglu sama tàmkat yooyu tey tedd yi rek yàlla xam na ko deux minutes la du mat juróom incha allah su ko defee ku ci nekk li nekk sa tey fii waroon koo yebbi ci ku tedd gi xaju fi waaye lu duuf ci nag yu xaju ci cin lii dañ koy tàggate soo ko tàggatee dina xaju cin lii kon su ko defee dañuy tàgg yonent bi deux secondes wala dem kër maam li maam une une seconde maam borom Touba maam Seydi Hadji Malick ndax noonu la ñu ko jàngale ñun ñu wàkkal si naa ni moo di salaatu wasalaam

خيار جابر مهذب دلا ولا تبقي القيد متولى جو جو المصطفى كسب محمد رسول الله في سيفا سلام خيار جابر مهذب دلا ولا تبقي القيد متولى فكري بمهرا مهرا نخرى منزلا احقل بعد الله بالمجد والولا لقي لو على الجنان yal na sama borom nangul ñu ci yal nañ ko fekke déwén yu bëri waay bi jaay Mustafa ñu ngi nuyu sëñ Abdou Aziz Seck bu baax maa koy ziara di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak wér ne kàddu yi day kàddu yi teraanga rek waaye moom su toogee ñun njaboot lañu amatuñu ci kàddu amatuñu ci xalaat lu dul topp rek ci ginnaawam di ko déglu di ko bàyyi xel loolaa ñu war ci lii waaye nag ak mbokk su yëkkatee teraanga jox ma ko faaw ñu jël ko nii la ca ba wane ni ñun suñu xol sedd na sedd na ci teraanga di lool jotaay bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu àndaat fekk ko ay ati at ay ati at ca lépp loo xam ne ñaan nañ ko fii yàlla nañu ko yàlla nangul yalla yalla fayal ñu sëriñ ab ndax jotaay bi jotaay bi yalla kese la ndax sabab bi moy ay donga yo xamni seeni way waajur la leen jëlon andi fi ñi sakku sa xam-xam nek fi ba kenn ko nek jot lay sa mur ñom ñu dajé ñëw santaat seet sëriñ ñaanal ko jotaay boobu jotaay bi yàlla ndax biñ fi toogee ba léegi lii ñu fi wax alxuraan rek lañu fi wax ak jëf jëf jëfin yu rafet ak loo xam ne képp ku ci jaar yàlla dina gërëm say jëf kon daal jotaay bii dañoo waroon a fay ñëw toog déglu ba suñu heure dem jot kon di wutal noonu képp ko nga xam ne fàggul na ko kon la ca war mooy nga sant ko ñaanal ko yàlla kon sëñ Abdou yaag taalibe yi ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla jàppale leen bi jaay rasulillahi sëriñ Cheikh Amadou ñu ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal yal yàlla taxaw ci biir ak ci biti li ñu fi dégg nga waxtaane ko kenn ku mu doon ci ñun man na bis bu set mu jël ci benn bind ba déwén ba ñu dajawaat fii kon barkeb alquran yal yàlla këpp la barkeem alxuraan yal na yàlla suturaal la sekk yal na yàlla sàmm la sekk sa diggante ak sëriñ bi xam nañu ko ndax yow suñuy diggante duñ ñaar duñu ñett kenn lañu lépp lu yendu ci yow bu soobee yàlla dina fanaan si ci man lépp lu fanaan ci man dina yendu si ci yow loolu nag ak mbokk akuk boole la moo ko waral ñi ngi ñaan daal yàlla yal nañu yàlla dàqal seytaane ci suñuy diggante ak mboolem jullit yëpp waaye yow sëriñ Cheikh ku bàyyi xel sëriñ Abdou nga ndax sëriñ Abdou xoole woo ko bëtu mag mm, danga kaa xoole jëmmi Baye Alpha Mamadou Seck loola nga koy xoolee loola ngay doxal loola ngay def ndax man lii may wax wóor na ni ma dëgg la ñi koy dégg xam nañ ni dëgg la waaye sëñ Abdou teg na la foo xam ni néew na mu teg fa kenn ndax li ko waral da ngeen a bokk li ngeen bokk waaye nag daa am laneen lu nekk ci biir ci seeni diggante moo waral lii waaye sëriñ Cheikh yàlla defal na la loo xam ne sa benn mag wala sa benn rak boo bokkal Baye Alpha wala nga bokk moom maam Amari Ndaak maam ca gisul ci yaw respect ak fonkeel ak wegeel loolaa ware lépp loolaa waral ñépp bëgg la fonk la yal na yàlla jàppale la sekk sëriñ Abdu ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal sama papa da daan wax ni nee taalibe daa war di ñaanal sëriñam ni taalibe bëggee sëriñam di ko ñaanal noona la sëriñ bëggee taalibe yi di ko ñaanal ñun taalibe yi nag ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ak li gu yokk ndax li ñëpp seede mooy dëgg kenn ku ne bu sa bët xonqee wala nga jaaxle wala nga am leneen lu la yitteel ci turu yàlla wala leneen boo ñëwee fii luy sa muur sëriñ Abdou dina la ko jox kon loolu soo amee kilifa gu mel noonu danga koy ñaanal yàlla muy gën di man loola ndax su ko gënee man sa aaju da cay gën a faju rek kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla bu la gilim gimin jiitu yàlla bu la gimin jiitu yàlla na yàlla sàmm la ci biir ak ci biti man sama diggante ak yow dañoo bokk li ñu bokk waaye yàlla daa def sans way jur yëkkati sama loxo teg ci sa loxo nga may dimbali di ma jàppale kon tey jii loo mën a xewle su ma nekkee ci réew donte damay dox dinaa ñëw insha maa ngi ñaan daal yàlla yal na yàlla jàppale ñu nga doonoon xaritu Baye Abdourahim Seck Baye doon kenn ci moom mu wóolu woon la lool doyloo woon la bàyyi woon la xel ci lu bari kon tey ji suñu fi desee ak yow bët booba la suñu waajur wa daan xoole ñun lu ñu doy di doyee bët boobu rek lañ lay xoole euh, kontaante ga ma amoon ci yow loola rek la ñuy sàkku ci yow ci yow di la ñaanal yàlla di nuyu mboolem kilifa yi fi rot si yëpp suñu doomu bàyyi ñi ngi leen di nuyu ndax ñun ñooy ñoom ñoom ñooy ñun ñu ngi nuyu Serigne Alpha Mamour Baye Moussa Baye Moussa ñoo ngi koy jox wàccuwaayam li ñuy wax ci yow moom la ñuy wax ci moom ñu ngi koy sant bu baax ci doxalin bi ak wéttali gi ak gunge gi ak bàyyi xel gi yal na yàlla fayal la moom ak rakkam yépp ak suñu yaay yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax di nuyu suñuy doomu bàyyi Serigne Mori Seck bu Baye Abdou Aziz Seck ñoo ngi koy jaajëfal ci taxawaay yi daara ji ak bàyyi la xel ak taxawaay yi yàlla guddal saw fan ñi ngi nuyu suñu doomu bàyyi Serigne Khalifa Gueye ndax moom yàlla boole woon nañu ak mbokk ak ku xaritoo te ak ku waaye jaxasoo gi dëgg bu amee Serigne Cheikh Amadou mii la moo waral ñu jaxasoo moom ba nekk benn kon ñoo ngi koy jaajëfal ñoo ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp yal na yàlla fay leen di nuyu Serigne Kang Cissé Cissé di suñu doomu bàjjan ñoo ngi koy nuyu li ñuy wax ci Serigne Alpha di ko wax ci Khalifa Gueye moom la ñuy wax ci Serigne Kang Cissé ndax ñoo bokk lépp muy nit ku baax ku gëm mag ñi ku bëgg lu baax yal na yàlla fayal ñu ko ñu ngi nuyu daayira wasifa bi Baye Zane Mbengue moom ñu ngi ko bokkal at yi yëpp ñoo fi bokk nekk kon ñoom leen di jaajëfal ci seen taxawaay di sant ñëpp mboolem taalibe yi ku fi teew si yal na yàlla faj say aajo yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla leen taalibe nag maa ngi leen di dénk di leen dénk boo amee lu kenn amul wala la gën danga koy foog sa fukki loxo ak juróom kon yéen taalibe yi leen lu gën sëriñ Abdou Aziz Seck amu leen lu ko ëpp kon ñu ne duñ ko fonk doyul ndax moom ak cofeelam ci ñun suñuy njariñ képp la ndax lépp lu mu mën ci ñun ñun ñoo ci ëpp njariñ moom kon kooku bu la yàlla boole moom nga xam ni kii naxu la kon ñun nañ doolee góorgóorlu bu baax góorgóorlu gi doonul wërsëg buñ koy jox waaye góorgóorlu gi jël sa bopp jox ko la ko ci ay ndigalam ak i tereem loolay góorgóorlu gi ñu war mooy góorgóorlu gi ñu war ndax suñ ko digloo ay ndigalam ak i tereem ñu bàyyi ko suñu njariñ ngi koy dénk ñëpp maa ngi ñaan yàlla yal na ci biir ak ci biti kàddu yi gudd na waaye maa ngi koy jéggalu di sant Serigne Cheikh Ndaw ak mboolem kuy tagg Yonent bi ci barab bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di jéggalu di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ma ciy dolli tuuti soxna yi ci kër gi ñi ngi leen di sant ndax lii bu rafetee yell jaadu seeni taxawaay rek ci kanamu sëriñ bi jàppale ko suturaal ko taxaw ci doxam loola waral lii tey jii mu rafet kon ñoomi soxna yi soxna yi yal na yàlla defal leen liggéey bu jub ca barkeel njaboot gi waa kër si ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant yalla na yàlla faj seen ndax bàyyi nañu xel seen way jur ndax sama papa la daan wax naan Ibrahima ma ni ko Seck mu ni ma su fi nit ñi ñëwee lañ fi wut si bu la ci kenn man ndax su nit ñi demee Abdourahim Kase nga fi bàyyi moom laay doon kon nag loolu jabootu si ñàpp xam nañ ko li fi ñëpp yi wut si ñoom la ñuy wut seen wayjur yal nañ ci jot yal nañ seen moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu a آدمي خلافتٌ ملكي